li wàcc ci taw bariwul luñ ci man mun na ci dara dogalu bi yàlla subhaanahu wa taala na neex si nun nan ci kontaan nan ko nangu nan ca bëgg suñu borom yàlla moo moom addunaam bi daf koy doxal kem ni mu ko neexe mu ngoog daf koy jaarale fu mu bëgg mu jaar moo tax ba rafetul ci ab jaam muy am lu ko naqari ci dogalub yàlla ab jaam daa war a nangu ab dogal te gërëm ko mu ngoog su ko defee nangu ab dogal te gërëm ko am na ay njëriñ am na ay njëriñ yu bari yoo xam ni xal seet nañ caa ñëw ca kanam waaye bokk na ci njëriñ yooyu dana tax nit ki ñeme ci gëm ni lu am yàllaa ko dogal kooku dina ragal aajowul muy ragal dina tax nit ki ñeme mu ngoog dina dina tax nit ki am ak ak ak dogu ak décision bu nga xam ne bii kenn du ko mën a dëpp dana dalal xeltam ku ku sa xel dal ci ne la yàlla bindan ci yow rek moo mën a am kooke du ragal kooke du yox yoxi ki nga xam ne ki gëm na ni li ko dal moy ci ko woon mukk te li ko moy dal ci ko woon mukk loolu bu sa xel ci sa xol da nga tayee jekki di ragal kenn wala ngay deng-deng ci lenn loo war a def tey itam da nga tayee jekki di am aw naqar ci lu la raw ndax naqar lu du la jëriñ dara da nga tayee jekki di am souci ci lu ñëwagul li ñëwagul jarul nga ci am souci nam war a mel yàlla moo ko xam te bind na ko ba noppi te lam ca bind dong moo tey am la ko neex rek moo mën a am maa chita rabbi laysa ma sha al ibad li soob yàlla rek moo mën a am te nam ko soobe waaye bisa bi mukk li soob jaam ñi mu ngo loolu lépp bokk na ci njëriñal gëm ab dogal doo jëkk di am suusi ci li ñëwagul ndax xam nga ne li ñëwagul ci waxal yàlla la nekk yàllaa koy sàkk nam ko neexee te lam tey def munoo ci dara keneen ku dul yow munoo ci dara su ko defee kon loolu gëm ab dogal dafay tax ba nit ki am bonheur am dund gu neex mu nga tax tam xelam dal bu baax a baax mu ngoog su ko defee dina jox itam ak njàmbaar bu baax a baax dina jox itam ak tabe bu baax a baax mu ngoog bu ko defee nag ak dogal loolu mooy genn wàllu gu njëkk gi genn wàllu ñaareel gi nag ci ab dogal mooy genn wàll gi nga xam ne doomu aadama da cee am wàll genn wàll gu njëkk gi mooy discipliné bi yàlla discipliné monde bi gi ci des mooy gi nga xam ne gii moom ci doomu aadama ak i jëfam la aju moo jaa nit ki li mu def ci lu baax ak ci lu bon ndax yàllaa ko dogal am moo ko defal boppam waaw nit ki li mu def ci lu baax ak ci lu bon yàllaa ko dogal nee naa leen ñëw gu ma ñëw fii ci barab bii ci bisu tey bii ak ci waxtu wi doonte ci njaay doonu weeru koor wi mën naa am naroon naa ko mën naa am naruma ko woon waaye yàlla moom bindoon na ko naroon na ko mu ngoog nar na ko bind ko ba nga ko naree bind ko moo tax bu waxtu wa agsee faw mu ñëw toog fii wax fi li mu fi li mu bind dinaa ko fi wax mu ngoog su ko defee kon dogal boobu aju ci suñuy jëf ndax noo ko def yàlla dugalu ko wala yàllaa ko dogal nun defuñu ko ndax da ngeen laaj boobu li ma jëf li keneen jëf li nu jëf ci lu baax ci lu bon rakkaa yi ñu julli njàngum alquran bi ñu jàng sàbbaal yi ñu sàbbaal yàlla joxe bu ñu joxe ci yoonu yàlla kaasu sàngara bus naan yeneen ci yàlla musal ñàkk a julli gus ñàkk a julli ngoog def la wut a def daal loolu ndax yàllaa ko dogal wala nit kee ko def ab laa jóg noonu bu nga xam ne mooy li indi werante ba tax ma naan leen du temu conférence waaye des bu su war a jàngal jullit ñi foofu dañ fee séddalikoo ci ñetti mbooloo am ñetti gisin ñu war a leeral ñetti gisin yi yépp ba noppi nag won leen bi nga xam ne gisin bi nga xam ne ci la yonent bi nekkoon sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam tey itam ci lañu war a nekk ñun ñëpp yal nañu yàlla may ak dégg ak ko xam ak jëfe dafa am ci jullit ñi ñoo xam ne dañoo wax ne ab dogal ci jëfi jaam ñi bu yàlla di dogal amul ñu ne yàlla dogalul li ngay def ak li ngay wax yow yaa ko defal sa bopp soo defee lu baax yewa soo defee lu bon yewa jëfi jaam ñi yàlla dugalu ko ñu ne xanaa gisu leen jaam ñi ñuy rey nit xanaa gisu leen ñuy naan sàngara xanaa gisu leen leen ñuy ñuy ñuy ñuy def daal bakkaar ci gàttal di def ay jëf yu bon di saaga di dóor nit di ko néewal doole ah kay gis nañ ko ñu ne jëf yu bon yooyu dañuy wax ne yàllaa ko dogal yàlla ko dogalul lu bon loolu la alqadari yiwun wax ñu ne yàlla dogalul mukk lu bon yàlla néewul kenn naanal sàngara te dogalu ko ci kenn ku naan sàngara yaa ko defal sa bopp yàlla néewul kenn nga nga nga nga nga rey nit ku rey nit yaa ko defal sa bopp waaye yàlla dogalu ko ci yow ma ngoon kon yàlla bindu ko santaanewu ko ni mu ni nga xam ne santaanewu ko naka noonu tam bindu ko te itam dogalu ko ñu teg ci ne ñu teg ci ne su fekkee ne bi xam na ne àjjana am na safara am na te ku def lu baax da ngay dem àjjana ku def lu bon da ngay dem safara nan la yàlla di dogale sirki mu def lu bon ba noppi mu ko yóbboote safara ñu ne loolu amul kon nag yàlla bindul ab dogal bind dogalul dogalul ci nit ki dara lu mu war a jëf mbaa lu mu war a bàyyi nit kay moo am coobare mooy def lu ko neex su defee lu baax nag dem àjjana su defee lu bon dem safara loolu la alqadari yu ni wax seen wax jooju nag li muy li muy nuru nuru lu rafet ci xel yi ñenn ci yéen dafa ñaaw li muy nuru nuru lu rafet dafa ñaaw li muy nuru nuru lu lu jub dafa dëng li muy nuru nuru luy noona du noonu fu nu mën a xamee ne noonu laam du noonu doomu aadama amul fenn fu mu mën a jëlee xam-xam bu wér fu dul ci alquran ak ci sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaya yi nga xam ne moom lañ jëkkoon a gis ak xadis yi daf na woon carrément ni lii du ni sans borom yàlla ginnaaw nee na lépp lu am moom moo ko bind dogal na ko mu door a am bind na ko ca alluwa ju mag ja mu door a am kon nag li amati ci nit ki bu dee lu baax bu dee lu bon kenn mënu caa génne borom bi tabaraka wa taala loolu ñuy jële ci aaya ji te loolu nag moom la ñuy weddi kon dafa mel ni ñii di xadara yu ñi dañoo weddi lu bokk ci alquran ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ba abdullah ibnu omar nee na ñoo ñi nga xam ne dañuy weddi dogal fu ngeen leen gis nee leen lu ñu julli du jëriñ dara lu ñu woor du jëriñ dara lu ñu jaamu yàlla du jëriñ dara feek gëmuñu dogal te man day deñ naa ci ñoom ba bañ koy gëm kon boog loolu wax jooju xadari yu nii weddi bu ñu weddi ab dogal dëng dëng na lool te jibut ñeneen ña ña ca ñaareel nag ñoom dañ na gëm nañu ab dogal kay lépp lu am rek yàlla lépp lu am yàlla yàlla moo sàkk nit moo sàkk tam ay jëfam kon nag nit lu mu def yàlla kenn waru ko wax dara kenn nu warta wax dara nit suñ ne nit ki daa naan sàngara loolu waxin la rek waaye yàlla moo dogal kaasu sàngara ba war a dugg ci gimiñ nga ak biir ba teyit mënu caa ñàkk a dem kon nag loola jëfi sans borom yàlla ku mu neex jëfi yàlla la neex ku mu naqari jëfi yàlla la naqari mu ngoog jëfi sans borom yàlla da koo jaarale ci loxoy jaam ñi rek na melug yàlla ak tànneefam loola moo mën a am leneen amul loolu loolu la ñooñu wax ñu ne kon ci kaw loolu jaam bi kenn waru koo jàppe ay jëfam te itam jaam bi bu defee lu bon kenn waru ko caa xas kenn waru ko ayibale ndax defu ko kenn waru ko caa yedd mu ngoog doonte dafa ñaaw lool kenn lu ko caa yedd loolu la ñooñu wax jooju wax tam lu mu leen nuru nuru dëgg du dëgg lu mu leen nuru nuru lu jub jubut jubut ngeen daal di jaaxle ngeen daal di jaaxle lu jëkkale du dëgg lu mu julli du dëgg loolu nu mu mën a amee kon dafa daal di mel ni kon jëf li li nit ki def nu néewunu yàllaa ko def ni xadari yu ni wax weddi dogal bi néewun tam nit kee ko def ni jabri yu ni wax saxal dogal bi kon nag ana lu ñuy wax li ñu war a wax ci kanam lañ koy wax te mën a déglu bu baax a baax a baax yal na yàlla ubbi xol yi ak xel yi te dugal ko ci ala kulli xaal pas-pas yi ñooñu moo gën a bon pas-pas yi ñuy weddi ab dogal gën koo dëng moo gën a mën a lor gën a mën a yàq pas-pas yi doomu aadama gën a mën a indi ak yàqute ci ci ci ci ci réew mi ak ci adduna bi mu ngoog ndaxte tey tam moom la nit ñi baree bari gën a xemmem gën koo bëgg ndaxte nit kay bu fekkee ne bii la muy def ci ay tàggante nee nga ko yow amoo ci benn responsabilité loolu day neex ñàkk responsabilité dafa neex moo tax moom ñu baree bari moom la ñu gën a bëgg mu ngoog ndax yàlla nit ki mën a am awlay am na benn waaye bu sàggan nee na asbaxtu munfailan lima yaxtaaru minni fa fi'li kulluhu taaati nee na man léegi damay damay def infial damay yëngutu ci li yàlla tànn rek man ab jaam laa boo xam ne yàllaa may yëngal ma yëngu rek lu ma def rek yàllaa ma yëngale noona yàllaa ma ko def loo moo tax ba man samay julleeg samay naan sàngara lépp ay jaamu yàlla la ah waaw pas-pasu pas-pasu bi moo ëmb lool ginnaaw pas-pas bi nee na nit lu mu def yàlla moo ëmb lool mu ngoog moo tax borom xam-xam yi wax ni ab ba daf katu senge mbenge daf katu bakkaar yàgg naa fab lay wi laye ko laye ko ba tax muy sàggane li ko yàlla sant ah di def li ko yàlla tere di bàyyi li ko yàlla sant ci kaw lay wi mu ngoog loolu itam dal nañu bare bare ci jullit ñi ba buñ dee seet sax nee na tardé gi ak dellu gannaaw gi am na ci loo xam ne ni ci foofu lay dellu mu ngoog jullit ñi bu ñu joxe misaal ci ak télé akub prière akub dellu gannaaw ci wàllu liggéey ci wàllu adduna ci ñoom la ñuy xel bi jëkk a dem te nee na li ko waral bari na ci loo xam ne mi ngi dellu si ci pas-pas bi mu ngoog moo tax ba noon yi sax ñu ngi ni koy reetaane am na ci yéefar yi ñu wax ne jullit ñi leen tax a tardé seen pas-pas boobu bi ñu gëm ne lu am yàlla ba tax ñoom dañuy def fagam rek toog duñu def dara loolu yi moo tax ñu tardé mu ngoog waykat ba ni jara qalamu alqadai bima yakunu fa sayaani altaxarruku walsukunu jununun minka an tafaa li an tasaa li rizqin wa yurzaqu fi giyabatihi aljaninu mu ne xalima gi yàlla ngay bind ab dogal daw na ci lépp lu nar a am wala nga kat bi wax nee na xalima gi yàlla ngay bind dogal yi daw na dogal na lépp lu nar a am ba bind na ko ba noppi nee na kon boog yëngutu ak dal ñoo yem def ak bañ a def ñoo yem nee na kon boog bul fi dof yow mii di kërti kërti naan da ngay wuti wërsëg da ngay def lii da ngay góorgóorlu ndax nga am lii nee na defal ndànk xanaa seetlu woo ne ab ëmb ci biiru yaayam du mbay du gor du togg du yekk te yàlla koy wërsëgal yàlla ma war lu wërsëg wërsëgu ëmb ci biiru yaayam moo war lu sa wërsëg ci kaw suuf si kon nag noppalal sa bopp boobu pas-pas te ko fas ndax defe ngeen ne dana doon jàmbaar ci liggéey déedéet ndax dana doon jàmbaar ci jaamu yàlla déedéet ngeen gis ne kon pas-pasu jabr jabr ya lañ leen tudde pas-pas boobu lu mën a yàq adduna la lu mën a yàq diine la luy indi ak perte la ci adduna ak ci àllaaxira waaye kon mu des rek nu war a xam pas-pas bu wér bi mooy ban pas-pas bu wér bi mooy yàlla forcéwul kenn te ab dogal am na yàlla mooñul kenn ci def loo ko lu ko neex ak lu ko naqari kenn ku nekk la ngay def yaa ko def ci sa taamu ak sa teeyu bakkan te laa ko dogal yàlla bind jëfi jaam ñi yàlla bind nit ñi bind seeni jëf te nit ki li muy def moo ko tey yooyu ñaar ñoo war a ànd loolu nag dégg ko jafe na ci xel yu bari waaye yal na nu yàlla tawfiqal dégg gi nii la amee suñ borom yàlla bu dogalul dara dul mën a am kattan lépp ak man-man lépp dafa yem ci yàlla képp ba tax nit ki lu mu bëgg a def bu ci yàlla àndul du mën a am te nit ki nag daa war a def war a dindi sama borom yàlla danoo andi fii ngir nu def te dindi waaw xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayukum axsanu amalan yàlla nee na moo sàkk dund dund ak dee pour natt leen ba xam ana kan ci yéen moo gën a rafet ay jëf kon yàlla daf na fay indi pour nu def te dindi te jëf ji nag su ko yàlla dogalul da dul mën a am ñu bare bare bare xamuñu ne safara bala moo mën a lakk suñu borom yàlla day dogal lakk gi foofu nag la ñuy jéem a déggee masalan di nga fa bee bantub almet bi bantub almet bi fii am na posan lii almet la fii am na posan ana safara wi safara wi anamu di nga kosatee du bant bi dafa tàkk de bant bi dafa tàkk ku ko taal di nga kosatee bantu almet bi ci al ci ndey ji mu tàkk laa ne ku ko taal ah yaa ko taal ah waaw bu fekkoon ne safara nekkul ci bopp almet ji safara posen bi bu fekkoon ne nekku ci dana tàkka moo kon yaa ko taal wala ka ci def posen baa ko taal foofu mat naa teeylu te seet ko ndax yaa taal waaw yaa bombe almet ji waaye nag defoo ci posan bi tëraloo itam loi bu tax ferñeentu safara étincelle daal di nekk ratatat defal bant bi defoo loolu li nga def daal mooy da ngaa bombe bant aku carton loolu nga def bi nga bombe bant aku carton te fekk bant bi dafa am posan carton bi am posan nga bombe mu ne par daal di tàkk yaa taal wala ki def posan bee taal dafa mel ne am na loo ci def dafa mel ne am na loo ci def du dëgg li nga ci def mooy sabablu mooy sabablu li ci yàlla def mooy dogal yooyu ñaar ban moo ci mën a manqué safara wi am safara wi almet ji am na posan bant bi am na posan waaye nag sabablu gi amul bi maanaa koseti woo ne takka takk gi du am kon donc yow nit ki am nga ci wàll ah ba tey kosete gi am na waaye da ngaa fab bant bu amul posan koset ko ci almet yoo xam ne amul posan ne takka kon dogal bi itam mënta ñàkk am ñoom ñaar ñooy ànd ana buy jiitu ana buy jiitu ah posan bi dafay jëkk a nekk di sabab yi posan bi dafay jëkk a nekk di sabab bi bi mu fi nekkee ba noppi nag gannaaw bu mu fi nekkee nga door a kosati du dëgg posan baa ngi fi muy sabab bi kosati nga kon sabablu nga dogal bi ñëw safar daal di génn loolu mooy nit ki moo taal safara wi bi maanaam moo ko sabablu waaye nag yàlla dogal takk gi su fekkoon ne bii yàlla dogalu ko dana mën a tàkk su fekkee ne bii nag sawlu gi amul tàkk gi dana am yàlla ci boppam moom la soob mu aj takk gi ci sawlu gi yàlla ci boppam moom la soob mu aj takk gi ci sabablu gi aj googu ko ci yàlla aj mooy alqawanin al tabiiya mooy as sunan al ilahiya mooy loi naturelle yi kon nag kon nag ndekete jaam bi dafa am lu ko war te mooy dogu yàlla am lu mu warlu te mooy dogal su jaam bi dogoo yàlla dogal jëf ji am jaam ji dogu na yàlla dogal na jëf ji am na dogu gi nag mi ngi ci jaam bi jaam bi mooy seet ba mu neex ko mu dogu wala mu ñàkk koo neex mu bañ a dogal mu bañ a dogu jaam bi itam ci kaw loolu ko war te mooy sabablu te mooy dogu ci niveau boobu lay amee responsabilité sama borom yàlla du régler benn jaam ci ay dogal safara wi lu tax tàkkut yàlla du ci régler kenn waaye yàllaa ngi lay régler ci ana lu tax fa boo bantu almet ji dóor ko ci ndey ji bu fekkee sabablu woo yàlla ci ñàkk sabablu gi la la yàlla di régler ci la lay fudde soo sababloo def nga li la war lan la sayidina muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam ci koo xam ne kii dafa am jëf ju baax joo xam ne da koo yéene bëgg koo def jéem ko munu ko ndax warati warati na ko ku am jëf ju baax ju ko war dafa koo xam ne kii dafa bëgg naa jël misaal ci aj màkka ndax mu gën a fes aj màkka ku koy def du ko ko man ki mënta aj màkka yàlla aj loo na ko màkka déedéet kon nag yàlla li muy santaane mooy lus man waaye nag am na lu mu santaane loola war nga am ci responsabilité yow jaam bi ci niveau ba mu la ko sante te mooy niveau sabablu boo sababloo ba noppi yow sa jaan wàcc na sabablu gi moo lay yóbbu àjjana ñàkk sabablu gi moo lay yóbbu safara soo sababloo sa wàll jeex na wàllu yàllaa ci def bàyyil yàlla ak wàllam yàlla nag laaju la wàllam matalan yàlla nee na la na nga joxe asaka waaye ci kaw nga am alal ju mat nisaab am déet yow amoo alal mën nga joxe asaka sa ñàkk a joxe asaka gi nga ñàkk a joxe asaka ci kaw ñàkk alal ndax yàlla dina la ci yóbbu safara déedéet ki am alal war a joxe asaka ndax mat na nisaab joxewul asaka ndax loolu mënu ko yóbbu safara ah kay kon nag sabablu ci niveau li nga mën mooy sa wàll te mooy moom laa tudde ak dogu boo sababloo ba noppi nag résultat yow war a bàyyi ko ci sabablu ga moom laa tudde ab dogal moom la borom xam-xam yi tudde ab dogal mooy wàllu yàlla subhanahu wa taala yàlla lee da koo war te mooy dogal bi moo ko dara warul yàlla subhanahu wa taala subhanaka ya rabbi astaghfiruka wa atubu ilayk dara waru ko lu dul la mu waral boppam yàlla nag moo moo warlu ab dogal moo warlu ab dogal te lu mu dogal dana am mun a jaar bi nag jéemal ma dogalal la mi ngi mel ni sama borom yàlla bu ne bayal ma fii te yow mënu laa bay mu ne la jéemal ma bayal la soo jéemee yàlla bay soo jéemul yàlla du bay su mbay mi amul ñu duma la mbay mi ku koy bay ku koy bay yàllaa koy bay ndax yow mënoo bay waaye bu amul ñu duma la wala lu tax ah jéem jéem bi dañ laa jéemloo jéemal yàlla nag yàlla nag fab na de mbay mi aj ko ci jéem gi booy jéem rek muy am xaw ma ndax dégg ngeen jëf gi li ciy wàllu yàlla ak li ciy wàllu jaam bi jëf gi day am te fekk jaam bi da koo sabablu waaye yàllaa ko dogal doomu aadama akuk lottam doomu aadama akuk ñàkk xamam akuk ñàkk mënam lu mu jéem te yàlla andu ca du sotti waaye nag lu mu jéem te jaarale ko ca luwaaye yàlla da cay ànd mu sotti bu dee lu baax la mu am ci tuyaaba ndax moo ko jéem bu dee lu bon la yàllaa koy sottal waaye da ciy am bàkkaar lu tax bu dee lu bon ci jéem lu bon yàllaa koy sottal mu door a mën a sotti waaye nag jaam bi da ciy am bàkkaar lu tax moo ko sawlu ndax leer na loolu xaw ndax leer na loolu yi mooy ab dogal ci jëfi jaam ni loolu mooy pas-pasu asalafu saaleh yàlla na ko yàlla leeral ci suñuy xol ak suñuy xel te may nu mu ngoog ñu dégg ko te jàpp ko ci kaw loolu la yàlla bind lépp ci kaw kattan googu ak xam-xam ba nag xam-xam bi moo koy mottali sans borom yàlla ca lawxul mahfuus bi bi nit amagul aadama amagul la doon bind nit kiy jëkk am aadama ak ka cay topp ak ka cay topp ba agsi xale ma gi di bind di bind di bind ba agsi ci Abdou Aziz Touré te yàlla boobu Abdou Aziz Touré amagul aadama sax amagul waaye nun danoo xamut ëllëg yàlla nag daa xam ëllëg nee naa leen yàlla xam na li am ba noppi ak na mu amee xam na li nekk di am ak ni muy amee li nga xam ne amagul waaye dina am yàlla xam na ko xam na itam buy am nu muy amee la amul te du am amul te du am yàlla xam na ko ba xam bu doon am nu muy amee loolu moo wuutale xam-xamu yàlla ak xam-xamu nit xam-xamu yàlla amul limite aywa Abdou Aziz Touré yàlla xamoon na ni dina am la mu nar a def ci ay tuyaabaaki ki bàkkaar yàlla xam na ko te fekk Abdou Aziz Touré juddoogul walla li Abdou Aziz Touré nar a def ci ay tuyaabaaki ki bàkkaar yàlla xam na ko te Abdou Aziz Touré juddoogul ndeyam juddoogul baayam juddoogul la yàlla xam ci Abdou Aziz Touré nag yàlla bind loo ko xalima ga ca lawxul mahfuz yàlla bind ko ñu teg ca nangami téeméeri millions yi ak Abdou Aziz Touré door a judd tudd gu mu tudd Abdou Aziz Touré la yàlla jëkk a bind bind turu ndeyam turu baayam fu muy juddoo ak lu muy mel day gàttam day gudd am day digg doomu day xeesam day ñuul waaye ndax yàlla da koo bind ci kaw force ci Abdou Aziz Touré am da koo bind ci kaw xam ko bind ko na mu amee da koo xam bind ko na mu na mu nar a amee te amagu moo tax ba xam-xamu sama borom yàlla bi ilmu intishaaf la du ilmu ijbaar yàlla bu xamee ci Abdou Aziz Touré lu baax mbaa lu bon yal na yàlla xam ci Abdou Aziz Touré ak ci ñëpp lu baax kat yàlla bu xamee ci Abdou Aziz Touré lu baax mbaa lu bon bind ko Abdou Aziz Touré mun ta mooy loola loolu dëgg la waaye nag yàlla du caa gën day jékki-jékki rek bind lu bon ne Abdou Aziz Touré bonal déedéet yàlla day xool xaybu Abdou Aziz Touré amagul aadama amagul awa amagul yàlla xool xaybu ca biir ñi mu gis mu gisaale ci Abdou Aziz Touré gisaale ay jëfam la ca baax ak la ca bon mu bind loo ko xalima ko kon la yàlla bind mooy la nar a am ca na mu nar a amee rek su ko yàlla bindee ba noppi Abdou Aziz Touré ñëw ne yàlla yow man yaa bindoon ci man lu bon Abdou Aziz Touré wax na dëgg waaye nag ndax yàlla tooñ na ko lu ko yàlla def sa doom di nga xam ne da nga ko def sa kër muy jàng bu xëyee dem jàngu ba ceeb école ba di jàng di jàng bu baax not yi not yi di baax nga seet ko ba mu wóor sa doom ji tey jii mu war defi mu war a defi examen xam nga ne li mu jàng xam na ko bu baax wala ustaas wala maître da koy jàngal xam na ko bu baax maître yi nga xam ne ñooy def ñooy jàngale bariwut ñoo xam ne ñii bu fin dana ñëwee bu ñuy def examen xam nañu seen élèves yi nar a réussir amul ah maître bi li ci gën a bari nekkul ay élèves ay ndongoom yu mu xam ne danañu réussir ndax lan xam na ko mu sabaqan maa ngi ko xam ne ca la weesu waaw bu fekkee ne bii élève bi dafa dem di defi examen maître bi la sama élève sàngam de moom dana réussir waaye jiw da day daanu te fekk daa xam ci diw ak bañ jàng xam ci diw ak réer xam ci diw meneen mu ci des ak nangoo jàng ak xel mu ubbeeku léegi mu dem kenn ka réussir kenn ka daanu ñu ne maître bi yow yaa ko daaneel ndax yaa ne woon day daan loolu jub naa déedéet maître bi kay daa xamoon ne day daanu mu wax ko sooy boo sax mu bind ko waaye nag ndax moo ko def déedéet xale bi ci boppam moo def daanu gi moo def tam réussite bi maître bi nag da koo xam wax ko sama borom yàlla itam naka noona lu am moo ko bind moo ko bind ndax da koo xam da koo xam te amagut waaye la mu xamoon rek la bind te yàlla la mu xam bind ko su jaam ba jógee ca lay jaar te kat kenn forcé wu ko ko jaam bi dafa am cooba rek boppam day def ci kaw bëgg-bëggi boppam la jaam bi nar a soob ëllëg ak lam nar a bëgg ak lam nar a def moom la yàlla teel a xam moom la bind bu ko defee nag bu jógee ba jëm ca bu sababloo nag yàlla dogalal ko loolu mbokk ji gi mooy maanaam yàlla bind gu mu bind lépp li xew ak li nar a xew ci àlluwa ju mag ja wa kullu shay'in wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaam mubin yàlla nee na lépp lu am rek nun yàlla bind nañ ko ca téere bu mag ba wala ca àlluwa ju mag lenn du dolleeku lenn du soppeeku ca na ko yàlla bind woon lenn du wàññeeku ca na ko yàlla binde woon mbir yu ndaw yu ndaw yi ba ci baaraam bii may talal di ko bank mbir yu mag yu mag yi yi ci pénc mi yi ci kër gi yi ci adduna bi lu mbir tuut tuut lu mbir rëy rëy sama borom yàlla xamoon na ko nam ko xame woon na la ko binde ba mu agsee jaam bee ko sarablu moo ko jéem waaye bu mu ko jéemee yàlla moo ko ko dogalal loolu mbokk jullit yi mooy maanaam bind gu yàlla di bind waaye nag yàlla day bind lépp moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne bii muslim nettali na ko kullu shay'in yuqaddaru xatta al ajz wal kays yonent bi nee na loo gis yàlla da koy dogal ba ci ak tële aku muuste aku aku ndof ak ndofe ak ndofe aku muuste sax yàlla da koy dogal baax def lu baax julli jàng alquran woo weeru koor jikko yu baax bon naan sàngara rey nit néewal doole doomu aadama yooyu yépp lenn lu ci nekk yàlla da koy bind dogal ko da koy bind ndax da koo xamoon da koy dogal ndaxte jaam bee koy sabablu waaye bu sababloo te yàlla dogalu ko du mën a am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba tey ci xadis wax ne buxaari yi ak muslim nettali nañ ko ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maqaduhu min annaar wa maqaduhu min aljanna qaalu ya rasula allah afala nattakilu ala kitaabina wa nadau alamal qaala icmaluu fa kullun muyassarun lima xuliqa la amma man kaana min ahli saada fa sa yuyassiru fa sa yuyassaru li amali ahli saada wa amma man kaana min ahli shaqaawa fa sa yuyassaru li amali ahli shaqaawa summa qaraa fa amma man actaa wattaqa wa saddaqa bilxusna fa sanuyassiruhu lil yusra yonent bi dafa wax benn bi saxaaba yi ni leen amul ci yéen kenn kenn kenn lu dul yàlla bind na ba noppi àjjana la jëm wala safara kenn ku nekk ci ñun ñu ne fii rek yàlla bind na àjjana la jëm wala safara ah yal nañu yàlla musal ci safara yal nañu yàlla yóbbu àjjana saxaaba yi na yonent bi waaw kon julli yeeg woor yeeg jëf yi kon moom aajootu ko ginnaaw kenn ku nekk fa nga nar a dem yàlla bind na ko ba noppi moo kon lu muy julleeti moo kon lu ñuy wooreeti moo kon kër kër ji li muy jëriñati teenoo bàyyi kon jëf ji te te te sukkandiku ci mbind moomu yonent bi ne leen déet jëf leen kenn ku nekk la la fa ko yàlla jëme dana ko jàppandal nu mu fa jaare koo xam ne kii da ngaa war a dem àjjana bokk ci ñu nar a texe yàlla dina la tàggatal yoonu texe ba nga jaar ca bu ëllëgee nga dem àjjana naka noonu tam koo xam ne kii da nga bokk ci waa safara nar texee di yàlla dina la woon dina la sóob ci yoonu texee di mu def ana kan moo war a texe ak kan moo war a texee di foofu la laaj bi nag laaj bi nekkul ci fi ngeen di xalaat fi ngeen di xalaat mooy gannaaw yàlla moo bind ci àjjana mbaa moo bind ci safara kon lu may yëngutoo ci wala il faut mu bind ma fa jëkk loolu am na waaye yonent bi dana ki nar a texe yàlla dina ko teg ci yoonu texe yanañ ci yàlla teg lan mooy tax nit nar a texe ak lan mooy tax nit nar a texee bi yonent bi da teg jàng alquran ay alquran ne fa amma man aata yàlla ne yàlla yàlla li mu wax la yonent bi nett li ci sootu layli mu ne fa amma man aata ka joxe alalam ci yàlla ngir yàlla joxe bu sell wattaqaa te moytu lépp lu naqari yàlla di góorgóorlu ci lépp lu neex yàlla wa saddaqa bil xusna te gëm àjjan fa sanu yassiruhu lil yusra daanu ko teg ci yoonu àjjan ah kon ndekete ku dem àjjana yàlla la fa yóbbu tey bind na ko tey bu noppi ku dem safara yàlla yàlla la fa yóbbu tey bind na ko tey bu noppi waaye nag yàlla du ko bind ci kaw ak tooñ